monsieur le maire ñu ngi nii di fekkee tëj tëju foire bi nga xamante ni moo secoué commune bi durant tout le mois de ramadan mu nekk activité boo xam ni jigéen ci nga accompagner leen ñu bëggoon a xam yan jàngat nga ci am. mais jërëjëf sant yàlla bu baax xanaa euh, jàngat bi ci ëpp solo mooy c'est de dire que euh, l'animation d'une commune c'est pas seulement les activités culturelles et souvent dañuy faté, li Nous savons que l'économie et tout le monde sait que depuis mois Ramadan bi euh, le cœur de la commune m'a donné au niveau de son siège pourquoi parce que en face y une très grande activité commerciale mouy la foire de la commission des femmes attachée au conseil municipal satisfaction euh, d'abord parce parce que les principales actrices ou animatrices euh, dañu un engagement au-delà des vraiment des conseils à des membres traditionnels de cette grande commission nous aujourd'hui une grande commission mixte parce que toutes les femmes d'obédience diverses beaucoup de parti politique et là c'est extrêmement important en termes de dynamique commerciale. Benen aspect également qui fait l'objet de notre satisfaction, c'est la diversité des produits qui ont été exposés. Et moi, j'étais vraiment émerveillé. À chaque fois que suis Fidjare avec mes conseils, avec également mes adjoints, euh, chaque fois de jour en jour, de me produits du yok, de me également diversité de Guinée et loolu permettre nañ ñu xam les familles yi wax dëgg yàlla euh, foire simplement pour aller acheter des produits des produits et de les revendre mais au-delà que produits yi ñu pour revendre ko dañ ci teg des produits nga xam ni ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp wala ñoom ñoo ko confectionné wala ñoom ñoo préparé les produits agroalimentaires te gis naa ne également le taux de placement de ces produits kooku également dafa constituer une très grande satisfaction parce que chaque jour, je ne vais pas dévoiler les recette. mais en tout cas, tous les jours, hein, au moment de la coupure du jeûne, hein, euh, le maire qui, supervise cette commission de pour faire avec, avec elle le point, mais véritablement, c'est une satisfaction totale du point de vue placement de ces produits. Donc, nous est content trop. Nous avons nos communes pendant un mois et également démontrer aux femmes que l'animation culturelle, c'est beau, l'animation politique encore, mais mieux, c'est véritablement l'animation économique. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision de voir périodiquement mettre euh, des, des, des, manifestations, en tout cas des, marchés de cette nature-là pour essayer d'accompagner les femmes. Parce que Djigani les rek Et au-delà également, tout à l'heure à la clôture, amener des activités connexes qui vont commencer à prendre forme. Gis nga également cette dynamique d'intégration des femmes qui sont venues d'autres communes voisines véritablement une très grande satisfaction maintenant on va essayer de voir aujourd'hui c'est en face parce qu'il fallait démarrer euh, disons de la mairie demain on va également cibler les localité pour que vraiment comme on dit en droit nul n'en ignore Digène bu ci intégrer la grande commission mixte à partir d'aujourd'hui liguer avec également avec toutes les présidentes présentes des Fatou des Fatsar, vraiment souvent elle a l'avantage disons de ressembler beaucoup de sensibilité euh, jaba bo ci démé marché bo ci démé tay ku nek am soxlo ku ne dina ñew c'est un lieu de rencontre comme on le définit en finance entre ku joxé ku bëgg jaral ak ku bëgg jënd offre et demande kon forcément euh, fofu dina am diversité mais li nga xamni nak mo koy gëna animé ki yor ak coparam ñew bëgg jënd mu gis limu bëgg motax tout le temps dama leen di encourager na leen euh, fexé di organiser ay foire baxna

Euh, de ces accompagnements financiers-là. Parce que nous souvent, les gens le financement, mais nous koy rentabiliser souvent ça pose problème parce que nous, devons dañuy défendre et nous koy également du efficience de telle sorte avec ces foires là nous on va essayer de les accompagner au plan financier c'est déjà amorcé c'est une très bonne chose mais ça nécessite ça demande un accompagnement aussi non financier l'accompagnement non financier c'est quoi Où nous xam des dañ leen di des di leen en termes de management, en termes également de coaching et également de gestion de leur compte d'exploitation et un peu dans des stratégies de diversification de leurs produits. Je pense que si vraiment nous, parvenir à, à, rassembler tout ce packaging-là, euh, véritablement, nous avons un gens qui solo, ci wàllu koom boo xam te buñ ko ci réussite parce que si na ci axe programmatique nous ci waroon travailler bu baax a et nous loolu dina nous permettre ñu dem vers ce qu'on appelle l'autonomisation à travers un peu dem au-delà des leket mën a dem véritablement vers la mise en place de véritables caisses pour accompagner de façon pérenne ces ces ces ces braves dames là euh, ñu xamoon leen démb ak barki démb mais surtout cette fois-ci nous dañu war changer vraiment doxalin bi donc ci dynamique boobu lañ nekk amorcé nañ ko am nañ ci yaakaar parce que am na une très bonne dynamique unitaire ce qui est extrêmement important. Maintenant, les reste, c'est les accompagner sur le terrain et les coacher davantage le maire parle de dynamique unitaire mais par ailleurs mais on a l'impression que Lima Limamoulaye c'est une commune mousquetaire un pour tous tous pour un est-ce que le maire a euh, une recette pour pouvoir travailler en équipe on ne voit plus de culte de personnalité mais on assiste à un travail d'équipe et aussi nous demandons au maire dans son équipe quel est le miracle et quel remerciement quel mot adresse-t-il à son staff qu'on a vu très engagé à ses côtés absolument prêcher par l'exemple je pense que c'est extrêmement important. Nous tous, ça a été notre credo. Que ce soit moi-même, que ce soit tous mes collaborateurs. Mais particulièrement également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conseillers qui avaient le mérite de siéger au conseil municipal aujourd'hui. Nous avons Nous dynamique les conseils. Je pense que la recette, c'est à ce niveau-là. Si jëlee exemple du ma mais très honnêtement euh, pour ne pas les nommer euh, Fat ku au plan santé et tant d'autres et tant d'autres également les neuf conseils, qui sont aujourd'hui des conseils spéciaux également c'est exactement la même dynamique Nous aussi nous avons bu permettre vraiment le citoyen lambda de Ndiarème bu se sur le terrain bu se en action de faire envie ñëw et ça je pense que c'est ça qui fait un peu l'attractivité de l'ensemble des initiatives que nous prenons et aujourd'hui on est en train véritablement euh, disons d'en obtenir satisfaction, mais également de mener diagnostiquer également quels sont les goulots d'étranglement, hein, en, quelque sorte les aspérités qu'il faudra aplanir dans ce sens-là pour mieux rassembler tout le monde. Parce qu'une petite commune comme celle de Ndiarem, si on ne réussit pas à créer cette dynamique unitaire-là, à aller ensemble, ça va être extrêmement difficile de faire des résultats. Donc tout le combat se soutient à ce niveau-là. Et en amont, il y a un excellent travail qui est en train d'être fait. Et vraiment, nous avons bon espoir.

gratuit boo xam ne dañ koy defal population bi defal ko agent yi defal ko jigéen ñi santante ci gërëmante ci sant ci maire ñoom euh, ci accompagnement bi nga xam ne defal na leen ko ndax ñoom bi ñu commencé ba ni ñuy jeexal maire daf leen ci assister loolu nag bu ko defalee ñoom maire luñ ko maire dañ ko defal bureau municipal bi yëpp may wax ci turu adjoint au maire yi xam ne li ñu def yàlla moo leen ci fay ñu leen di ñaanal ba bu déwénee ñu mën a def foire boobu doole bi. bëggoon nañu xam initiative bi si si kan la jóge exactement initiative. waaw xam nga Ndiarème Limamoulaye nag macha allah dafay commune boo xam ne dafa bari ay jàmbaar euh, te jigéen ñi ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ñu spécial lañ ma wax la léegi comme benn conseillère spécial boo xam ne ñu koy wax soxna faatu Ndiaye Sarr euh, muy conseillère spécialu maire. mo am initiative bu organiser foire bi ñu yàgg ko def beneen biit bi ñu demee ba foire bi waaj jeex moom aussi mu sollicité wat maire sollicité jigéen ñi ne bu ñu ñu tëjee ko ak benn ndogu euh, boo bo ne dañ koy joxe ci turu jigéen ñi ci turu mairie bi donc euh, loolu la. bon euh, foire bi ñuy def ni sen koppar bi nga xamante ni moom lañ koy defee kuni foire nag di nga wax ñoom seen fond bi fan lañ ko jolee wala dafa am ay ay borom doole yu nekk seen ginaaw wala ñi leen di jàppale fan la ñuy jógee exactement. xam nga ñoom li ma wax sànq ne la ñoom ci seen biir ñoom ay actrices culturelles ñu ngi ci seen biir ay euh, fem transformatrice ñu ngi ci seen biir ñoom d'abord dañu am seen réseau boo xam ne dañuy dem ci ay foires yu dul fii sax moo tax bi nga xamante ni am nañu idée bi mais mairie accompagner leen ci. Euh, xam nga d'habitude foire pour nga def ko il faut nga am autorisation mairie mairie aussi mën na la demander xaalis boo xam ne si ni mooy dafay sand ak yëpp mais mairie comme xam na ne ñi nga xam ne dañoo def foire bi ñëpp ci communauté bi lañ bokk ci biir commune bi lañu ñu bokk te ñoom feneen lañ ko daan defee ñu ah, ñu favoriser leen encourager leen pour ñu def ko ci mairie accompagner leen ci. Euh, li nga xamante ni def nañ ko fii bii mooy ñaata édition. waaw bii mooy première édition mën nañu wax. première édition euh, li ñuy def seen biir rek la yem wala dañ ko génne partagé ko ak ñeneen. waa xam nga loo def ci mbedd mooy génne nga ko partagé ko ndax looy def ci biir mooy li nga def ci biir kër yi. mën nga koo def si mbedd fekk sa biir tamit la yem. waa c'est partagé parce que mbir la moo xam ne boo xoolee dañu ubbi fii femme yëpp ñu ngi fii femme boo nga gis rek muy femme actrice. Euh, de développement muy euh, femme de charge yi muy femme yi nga xam ne si ñoom ci ci ci ci formation la ñuy yëngatu ñi ngi fi présidente commission femme bu mairie bi mi ngi fi ñëpp ñëpp rek ñoo xam ne gis nga leen rek ñu du ay benn groupe rek ñoo def lii mais presque commune bi yëpp ñoo ko def. Euh, li ñu def nii fan la leen mën a yóbbu ak ñi nga xamante ni tamit ay jigéen lañu bu ñu gisee initiative bi est-ce que du leen may doole ñoom tamit euh, fu waay mën a nekk rek nekk jigéen war a mën a def foire. waaw xam nga mbir moo gis tàmbale la euh, ñun yéene bi ñu si am mooy ñu demoon tey ba ñoom duñu xaj fii. ñu fexe bon ba nga xam ne si jigéenu département bi jigéenu Sénégal jigéenu àdduna dañuy mën ndax foire boo ko déggee mooy rendez-vous la foire mooy genre tourisme ci commerce euh, d'habitude foire ça ñu bari yaakaar nañ dañ koy def pour am xaalis mais foire da nga koy def juste pour ja wane sa produit wane yow yaay kan am ay partenaires yoo xam ne dinañ découvrir foire bi ba mën a jaay la feneen ci àdduna donc suñu sooyee ñun mooy mu bañ a yem fii rek ci commune bi bañ a yem ci département mais mu dem au niveau national international. sa kàddu gu mujj ci jigéenu sénégalais ñi nekkee jàmbaar seen teel xëy seen guddee waaj seen nangoo liggéey. waaw bon d' abord féliciter toutes les femmes du Sénégal jigéenu Sénégal moom ku waxal yàlla xam ne ay jàmbaar lañ non seulement ñooy suñuy yaay ñooy suñuy soxna ñooy suñuy sœur ñooy suñuy jigéen ñooy suñuy lépp ñu doon ñoo xam si ni ñu neex a jàppale lañ ndax la femme sénégalaise àdduna bi yëpp dañ leen naw ci nangoo liggéey fonk seen bopp. fonk seen eh, askan fonku sen dekk fonku sen sen mairie eh, bo xolé jigen ñi nga gis ni sen ay jambar lañ ci côté yépp waaw lool moy suma cadeau bu muju yeen aussi ma sante len bu baax gërëm leen yéen ak ma demba len féliciter bu baax ci ni ngeen taxawee. Damel TV sha allah ñu len ñu ñaanal len aussi eh, ngeen dem ba ag fu ngeen bëgg ag dam man la malik Ba le 3e adjoint maire de Ndiarème Limamoulaye maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm. asalaamaaleykum euh, Géejawaay asalaamaaleykum Njaareem Limaamu maa ngi nuyu bépp jigéen bu fi nekk euh, di la jox sa wàccuwaay man la Ndeye Fatou présidente commission femme bu Njaareem Limaamu Laay maa ngi nuyu jigéen ñépp di jox ñëpp seen wàccuwaay di wax ne dañoo foire. yàlla dogal foire bi nag mat na tey tey nag ñu def nag togg ndogu nga xamante ne moom la ñu tëje tey foire bi ñu defar ay ndogu nag ci biir defar ndogu bi nga xam ne moom moo tëj foire bi ñu amaale nag beneen programme boo xamante ne moom mooy lal basang teg leget tubarkalla macha allah def ko mbootaay communal de njaareem limaamu laay def mbootaay communal bu njaareem limaamu laay def na mbootaayu communal def ko fii ci commune bi waaye jigéen ñi di ko natt fii ci esplanade bi mu neexee yàlla sunu boroom te mbootaay gi liñ ci namm yaakaar naa ne bari na fas nañ ci yéene def ay financement waaye fës nañ ci yéen a def ay formation waaye li ñu gën a ñor li ñu gën a bëgg li ñu bëgg a li ñu gën a soxal mooy jigéenu njaareem Limaamu Laay en tant que présidente commission femme bu njaareem tàllal naa jigéen ñëpp loxo maa ngi woo jigéen ñëpp fépp fu jigéen nekk ci commune njaareem Limaamu Laay maa ngi lay woo ci mbootaayu communal bi di la woo ci commission femme bi di la woo ci développement te xam ne commune bi nag bu neexee yàlla suñu borom fas nañ ko yéene gën a liggéey waaye fas nañu yéene jigéen ñi gën a gis seen bopp ci commune bi tubaarkàlla macha allah programme yi nag yemul foofu ndax dama naan présidente commission bi nee na chaque jour programme maanaam chaque jour ne jigéen ñi yëngatu dama naan sax. dem nañ ba jigéeni département bi yëpp dinañ leen la loxo ci commission femme bi fépp fu jigéen nekk woo nan la boole nan la bokk nan ak yow te dinañ gën a wàcc ci base bi gën a seetiwaat mbootaay yi gën a seetiwaat groupement de femmes yi gën a seetiwaat association yi ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ci euh, groupement communal bi mbootaayu communal bi waaye mbootaal bii ñuy def kii Euh, esplanade bi fii bu neexee yàlla sunu boroom foofu daal lañu ñu tolloogum incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ah, di xaar nag képp ku bëgg a bokk ñu boole la képp ku bëggul a bokk dinañ waxtaan ak yow seeti la boole la ndax nag mbooloo mooy doole waaye ku nekk xam na ni jigéen mooy yaay. kon nag yaay woote na yaay tàllal na ñëpp loxo bépp yaay bu nekk njaareem limaamu laay rek ñu ngi lay woo bu neexee yàlla suñu borom ci commission bi. salaamaaleykum waa njaareem limaamu laay salaamaaleykum ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci ne turam ak santam leen jox seen wàccuwaay gannaaw ba ñu sante yàlla nag julli ci yonent bi sant sunuy ñaari waajur sant sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu wa sallam ñëw nag doon def foire fii ci njaareem limaamu laay commencement koor gi début koor gi ba fin koor gi ñu doon ko clôturer nag tey ndax foire bi li ko indi mooy ay jigéen lañu nekk ay jàmbaari jigéen ñu nekk njaaram limaamulaay di jaay bëggoon a toog nag won njaaram limaamulaay ni ñun politique rek nekkuñu ci dañuy liggéey kenn ku nekk yaa ngi am sa activité booy def groupement bu nekk am nga sa activité booy def ku ne yaa nga ca la ngay liggéey moo taxoon ñu exposé fii ci foire bi ñëw waxtaan ak mu le maire mu nangul ñu ko ñu def fi baas toog fi nag di jaay koor gi yëpp ñu ne fi kenn ku nekk la nga produit nga indi ko teg ñu wane ni ñun dañuy liggéey kenn ku ne yaa ngi am ci loo tooguñu rek di nelaw loolu moo tax ñu boole fii amul parti amul benn parti parti yëpp la ñu woowoon ku fu waay bokk rek ndax développement lañu doon def li ñu def mooy boole jigéen njaaram li maamu laay amul parti fu waay bokk rek yaa ngi ci biir ndax ñu ñu nekkaloon fii ku nekk am nga ci parti boo bokk waaye danoo booloo rek ñëw nekk benn daal di def sunu foire di ñaan yàlla nag bu déwénee di woo jigéenu jaaram limaamu laay yëpp na ñëpp ñëw ku amul formation ñu former la utal la financement jàngal la métier boo xamante ni da ngay liggéey ba bu foire jotee nga mën a ñëw participer ci foire bi ndax ren benn baas dañu def waaye ñan nañu yàlla déwén ñu tàllal baas yi ba euh, euh, talikaro bi yëpp ñu tàllal baas yi ba tali karo bi jot def ko ay estendre woo jigéen ñi kenn ku nekk am sa estendre la ngay liggéey nga exposé ko ñu xam ni jigéenu njaaram li maamu laay tëdduñu rek di nelaw di sant nag jigéen ñi andalon ci àndaloon ñëpp su ma limee rek damay juum jigéen ñi ma ci àndaloon ñëpp maa ngi leen di sant ndax dëgg dañu heures lañ ba heures ci ñu dem ndogu ji tey nag ñu doon collecter nag sunu ndogu lii nga xam ne dañu ne maire dañu ñaan nañu nangul ko dogal na foire nañu ba foire bi di jeex ñu bëgg a collecter bi ak ndogu ndogu bëgg collecté sunu foire bii nag ak ndogu la ñu bëgg maire nangul ñu ko jàppale ñu macha allah ay conseil municipal am ay adjoint tam ñëpp jàpp ci wax dëgg yàlla ñu daal di defar ndogu li nag macha allah togg ko nag waa dëkk bi génn maire ànd ak délégation mu génn ñu ànd ceeg nag waa commission femme bu njaaram li maamu laay te Ndeye Fatou Ndiaye jiite ko ànd ceeg jigéen ñëpp ñoom Yacine Thiam ñoom Muna Ndiaye ñoom euh, euh, Euh, kii Mariama ñoom Abiya yaa Bokar Diop ñoom Ndeye Thiandoum ànd ceeg euh, Ami Diagne ànd ceeg euh, Ndeye Thiandoum ànd ceeg ñëpp ñëpp ñëpp boo limee dangay da juum te doo matale ak Khady Diouf mi nga xam ne mooy géwélu VIP ndax dëgg yàlla toggal ñu tey ginaar yu neex a neex a neex toggal ñu soosi servil ñu ko macha allah ñu koy sant di ko gërëm. di sant nag waa Njaaram Limaamu Laay ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn boo limee da ngay juum maa ngi ziar ñëpp man la Fandiaye Sarr nekk conseiller euh, euh, euh, cabinet maire nekk sarge de mission maire wax dëgg yàlla ñu ànd ak commission femme ak commission santé bu Yacine Thiam di liggéey di jàppale jigéen ñi ci formation di jàppale jigéen ñi ci ay financement ndax DER baa ngi fi ñu ngi financé ñu ngi wut ay partenaires ñu ngi financé macha allah ku bëgg a liggéey daal ñëwal ànd ak ñun ñu ànd liggéey xam ne politique rek taxuñoo jóg di sant ñëpp bàyyiwuma kenn boo limee da ngay jum te doo matale may ziar ñëpp di siyaar ñëpp bàyyiwuma kenn di baalu ñëpp àq baal naa ñëpp yàlla nañu yàlla boole jéggal assalaamu aleykum maa ngi nuyu ñëpp di santaar yàlla di julli ci Seydina Mohamed di ñaan lii ñu def tey. yalla nañ ko def at yu bare bare te lepp and ak wër ak sutura ak teranga di nuyu ñepp nak di santar bu baax monsieur le maire Mor Waré Guèye ndax japp na ci combat bi wax deug yalla li mom mo ñu ko autoriser ñu def ko ah sha allah mu japp ci nak kep kuy euh, bureau municipal am jàpp ci kuy conseiller conseiller japp ci kon mënu ñu a fayal na yalla fay leen non lay santé nak fan fan jay sar diko ñaanal gudd fan gu and ak wër ndax wax deug yalla xalaat bu rafet bi moko xalaat tek ko ci table ji tan ak sa sonul tayiwul yoqatul bu nu xesse comme li ma waxoon léegi rek moy lal moy lal le njabootam yal na yalla fay ko ba tay ji ni ñu toge ni ma nga ne ca bolé ya has kon kon ñu ko fay yalna na fay ko di nuyu la président nen euh, Ndeye Fatou ndjay momi tam mu japp ci gis nga macha allah affaire yi ni mu taro mu jënd mbubu yépp jox jigen ni ñukoy ñaanal momi tam ak sutura ak teranga di ñaanal ñi nga xamni nak ñom lañ bokkalon tay foire bi mun a njaay ngi si biir ami jaañ a ngi si biir macha allah jeyna baa ngi si biir yaa abi yaaya nday nday euh, càndum macha allah jeyna ba ah maam maam faatu waalo waalo xadi géwal VIP surtout nag ma taxaw ci moom xadi géwal VIP kenn du moom xadi macha allah daf ñuy liggéeyal te liñ ko war jox duñ ko ko jox da koy def rek ci doole boppam yal na yàlla fay ko te dëgëral ko bu baax a baax noonu laay nuyoo tim jànqe mii woon ci foire bi macha allah ndikuloo su wàccee day ñëw ci foire bi ramataal toujours bu wàccee day ñëw ci foire ah ana yaay yaay faal euh, macha allah yaay faal bëgg fàllu mi ngi nii toog ak képp dama bu ma sañoon damay tudd ñëpp nday soxna jéey moom itam macha allah saa yi moom it day ñëw ah day ñëw ci sunu biir man daal damay ñaan ànd bi yal na ko yàlla téel boppam. yàlla bu ci seytaane am yoon yàlla nañ ci yàlla dimbali rus ñu ci muy ànd nag c'est apolitique muy ànd développement kese ndax ñun jigéenu njaareem Limaamulaay war nañoo dépasser cadre politique war na nañuy ànd ci développement war nañuy ànd ci loo xam ne yàlla kese moo tax ndax politique kum boole ak nit bu ëllëgee moo lay tàqaleeg moom kon nañu ànd te yàlla kese kese kese tax képp koo xam ne sa problème taxaw na ñeneen ñi ñëw taxaw si soo xewlee lu neex ñeneen ñi ñëw boo xewlee lu naqari ñeneen ñi ñëw bis tey kaa yal nañu yàlla gën a boole gën a tàppe xol yi gën noo dëgëral macha allah laf tet kenn ku ne sa yitte di sa yittey moroom ci kàttanu yàlla ak mbaax yonent bi ndax Fane Ndiaye Sarr mii développement rek la xam macha allah ñun ñuy toog nii fii ñëpp politique bi dañ koy def de mais si développement lañ njëkkee woon développement rek la ñu xam yal nañu yàlla jàppale. yàlla dëgëral nu ndax man bi may ñëw Géejawaay maman Yande laa fekk sama bàjjan bu baax bi nga xam moom ma jàngal développement muy maam Anta Gadiaga yàlla na xippee àjjana mu teg ma ci loxoy maman ak euh, mère Fatou Diop mère Fatou Diop yàlla na xippee àjjana moom itam macha allah kon ñun développement dañ cee juddu daal dañ cee juddu yàgg na maison Mantoulaye jën bi ñun ñëw ko inauguré ñun lañ ci njëkk a formé kon loolu du tey yàgg na kon yàlla nañu yàlla jàppale. yal nañu yàlla dëgëral Fane Ndiaye lii nga initié ba def ko yal na ci yàlla def lu kawe sa njort yal na si yàlla def lu kawe sa njort Fane lépp loo ci yaakaar yal na la sut barke Seydina Mohamed bu nee nag yal nañ ko fekkee ñu ñëpp tatal ko su boobaa yal na nag yi bari noonu nag la ñuy remercier euh, euh, Modou Faye Modou Faye kim kenn mënu koo fay li ma ne affaire bi c'est apolitique Modou fay bi mu ñëwee dani lu meer def dama koy def ndax sama mag ju baax la. monsieur le maire mii sama mag la kon su jàppee damaa war a jàpp moom itam jox ñu vraiment enveloppe bu nekk en état de grossesse kon moom it munuñu ko fay yal na yàlla fay ko noonul monsieur le maire def noonu la ay adjoint tam def moom it ak ay adjoint Bas Jaxate dañoo toog rek macha allah mami seydaan daan ni Bas moo yónnee lii ainsi de suite si ñoom euh, euh, euh, déedéet beneen ko adjoint bi Maodo Ba macha allah ak keneen kii uh, daaw uh, kii fay ah Ablaye Sall Ablaye Sall it moom dafa ñëw yem ci rek daan ni ah man ni sama participation yi noonu nuy bé beral nuyoo nag coordinateur bi coordinateur uh, abdu seen wax dëgg yàlla manoon na ne waroon ngeen a déplacé ba ci man wax ma déedéet daf ko dégg rek ndi ko wax ko rek mu jël la mu am moom itam yónnee ñu ko ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm kon affaire bi li ma leen wax la rek issi au Ndiarème de lim fii ici à Ndiarème de Limamoulaye fii amul politique la Baydi Seye waxoon dañ koy ñaanal yal na xippee àjjana monsieur le maire di Seye yal na dëkk ak Seydina Mohamed dani dani macha allah Ndiarème Limamoulaye mooy parti bi dani Ndiarème Limamoulaye mooy sunu parti képp ku dugg ci fii mairie bi boo dugalee sa tànk si biir mairie bi amatul parti ñëpp ñoo yem moo waree nag wuutu béy di daan ni la béy di daan def duma ko du ci dindi dara ñun ñëpp mu tàllal nu loxo ni ñëw leen la béy di daan def duma ci dindi dara ñun tam ñu ñëw fekk si ko ci loolu boobaak tey dindiwu ci dara yal na yàlla dëgëral nu wax ji bari na waaye xol bee sedd sunu xol moo sedd ñun ñëpp a kontaan yal na yàlla kontaan barke Seydina Mohamed sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp jërë ngeen jëf. Captain, former MLA, St. Andrew's Lappai, Yeah, I'm in jam, never let lool sopp ma lool may be commune bi